loo planifié lu ne loo xam ne waajal loo ko ni ëllëg gannaaw ëllëg ni laa koy doxalee amuloo chance réussir ko bu baax parce que boo planifié wul da ngay improviser. Mhm. ci le pilotage mel na ni mu ngi ci wàllum lu ñuy def muy benn mhm. mu des man li ma tuddee volonté maanaam man bëgg naa mhm. doxal te yàllaa tax bëgg naa toxal intérêt réew mi tax mu bañ ci am yeneen calcul politique buñ ko amul dina metti mu des nag nan la ñuy feex ba suñu école ñun ñu moom ko ñun Sénégal bu bañ a nekk école Sénégal di keneen jiite maanaam ñu décoloniser ko loolu nag pour ñu décoloniser ko dina bëri ay fan bi ci njëkk kan mooy joxe comme bi ci école bi kan mooy financer suñu système éducatif. loolu bu ñu ko amee loolu mooy problème bu rëy bi. oui bu ñu ko amee bu ñu ko amee danañu danañu mën a am li gën ci Sénégal te muy. lu lu lu lu lu sosoo ci suñuy maam. maanaam une école sénégalaise. décolonisée école sénégalaise. c'est sénégalaise mais Inde Inde gën a noonu la ñuy def. seen budget ku ci nekk sa kii dañ ciy génne loo xam ne. pour école mais gis nga bi ci des gis nga bi ci des. ñi fa nekk gis nga bi ci des mooy programme lan la ñuy jàngal suñuy doom lan lañ leen di jàngal. xam nga loolu dina jur problème yoo xam ne gis ni doyen révèle na sànq question employabilité. Mhm. maanaam boo demee bu jàng ba pare la ngay dooni suba da ngay dooni ëllëg fii lañ koy lijjantee ci li ngay jàng tey kon loolu muy ay préalable yoo xam ne jàpp naa ni jot na ñu inspiré te loolu assise yu gouvernement Sénégal organiser te dugal ci lu mot cinq cent millions assises yooyu géey na ci ay solutions yu bëree bëree bëree ci fan yu bëree li ci des mooy jëfe nan la ñuy mettre en œuvre yooyu recommandation des assises loolu mooy problème loolu mooy suñu léegi nag ñun dugg nañ ci anne scolaire Birama Birama wax na ko conseil interministériel am na donte les sur la sur le le, le principal ñun d' accord ñu wax école moom foo ñu waxtaanee ko. Mhm. moo tax ñun ñoo ngi fa woon. demoon nañ fa ma àndoon sama naataango waa UDEN waa science ak waa Stellas FC parce que ñooñu laa bokkal kuréel ok ñu dem ñu jox ma kaddu ma waxtaan ak euh, euh, euh, premier ministre <coughs> ci loo xam ne moom mooy jafe-jafe école sénégalaise mm-hmm. lañ ko wax mooy ci système éducatif boo gisee loo xam ne jàngalekat yi ñu ngi koy wax boobu ba léegi li gën a bëri ci seen i lu ñuy wax mooy respecter accords yi ñu signé mm. lu ñuy wax yëpp sa tourne autour de donte nag nangu naa ni def nañu effort financier yu bare te yooyu nag du sarax parce que bañ ko defee février deux mille vingt six deux mille deux mille vingt deux ba ñu dem ba fin mai ñu def mettre ko en œuvre après gis nañ ni le coût de la vie a augmenté loolu aussi c'est discutable mais qu'à cela de soi jàpp ni am na ba pare mais am na lu ñu des. mooy yokkute gi ngeen nemmeeku. ci biir système bi am na am na am na am na féewaloo boo xam ne. jàpp naa ni nguuru Sénégal waratu ko mën a nangu mooy question jàngalekat yi ñuy tuddee décisionnaire te loolu bokk na ci accord bi loolu du question bu bees dañu jàpp ni jot ñu joyanti seen situation loolu nag lu ko waral mooy lan lenn kese cote gouvernement Sénégal nangu ni décret bu ñu tëggoon 1974 jot na ñu ànd ci coppite 74 ba léegi nag yàgg na. Mm-hmm. ci diggante bi lu bëree soppi nañ ko. ñu bugg ñu ni ñu soppi décret boobu bu ñu ko soppee dina andi situation bu bees ci yooyu jàngalekat mais jàngalekat yooyu Sénégal moo lay recruter du keneen moom moo ne ku am trent cinq trente ans au plus ou au moins dañoo recruter wala trente cinq ans ñu recruter leen boobu amuñu âge décisionnaire ñu téye leen ci examen bu yéex ñu téye leen ci génn kay génn kayit bu bu yéex ba tey ñu duggal leen situation bu ñu tuddee décisionnaire syndicat yi ñëw ne lii la ñu jàpp ne su ngeen ko defee danañu rectifier situation jàngalekat yooyu topp ñu rek di wax dañ ko bind. modification décret soxna 347 moom mooy situation bi ñu war a mën a régler jamono yi ñuy tollu tembe gouvernement Sénégal nag jëloon engagement ba mu génne woon projet ne lii laa fas yéene corriger ba ñu ko xoolee ñu gis ni lu bari lu war mën a dugg ci décret bi dugg fa ñu bindaat. Mm-hmm. ñu jël engagement ba tey France di ci dem moo wax ni premier ministre Abdoulaye Ba euh, Amadou Ba ba muy nekk à la disgrâce dafa recevoir <laughs> décisionnaire yooyu noonu no c'est vrai. mooy deux deux ans. ba mu ba muy nekk noonu à bi ma leen recevoir yi dama <laughs> ah, mu toogee jël engagement kon moom bi mu toogee touche yi euh, recevoir ay bien sûr mais même le, le, le même le président même président assemblée président assemblée nationale même président assemblée nationale ci gouvernement jël ay engagement waaw ah, léegi bi muy premier ministre muy assemblée nationale jël ay engagement nii dina fexe ba loolu ñu saafara ko ba tey ku nekk ci banc de touche bi nan lay jëlee engagement yow tamit oui non su ma non xam nga bu nekk daal la touche ne signifie pas que bokkul ci c'est-à-dire il a des entrées à ah, supposer que boobu nekkut à supposer que boobu nekkut mais léegi pendant que qu'est-ce qu'il a keroog conseil interministériel bu ñu ko interpellé vertement sur la question il nous a snobé <laughs> ah, ah, ku nekk ci la barre touche ban engagement nga jël Maria comme moom moo mujjoon ci parole conseil ministériel bii nii daf lay ah, comme moom moo mujjoon ci parole nag kenn du ko yedd ci dafa wax ba pare daal di tëj mbir mi